عوذي بربيا والواحد الأحد من اللعين كافاني شر من جحد السلام عليكم بوك تالبي نونغي ñaan cheikh mahamadul muntaxa mu yàgg fi lool mbakke téwér rakkam ju baax ji jëwriñam ji soppeem bi sëriñ Sidi Mbakke moom Cheikh Abdoulaye Lahat yàlla na fi yàgg te wér noo ngi kër noo ngi fii nag ci kër Cheikh Abdoulaye Lahat kenn du ko fàtte dañ leen koy fàttali bisu sunu jàmbaar ji ñëw na ki liggéeyal yàlla liggéeyal rasulillahi waaye liggéeyal sëriñ Touba doy na rek ci jëfi Cheikh Abdoulaye Lahat kër mag moom doy na bat ni tukki ku doon xalifam sëñ Bamba sa kër wuuf jumaa ji yàlla ak Cheikh Abdoulaye Lahad waaye daal li baax di baax baax deke dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du rapp du raaf du réer sëriñ sii di noo ngi ñaan nga yàgg lool te wér te yàlla na la yàlla may ngërëmal sëriñ Touba nu bis bii nag mooy bis Cheikh Abdou Lahad ñu di leen ko fàttali talaata la wen kaat tombeeg ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor weeru koor wi nu nekk le 24 boobu nag ci la ñu woote màggalu Cheikh Abdou Lahad jàmbaar ji jot ndigal ca magam ja Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu jox ko ko mu dajale bokk yi gis ngeen appel bi ni mu mel ku ko xool xam ni rakkam yi ak njaboot gi ak cheikh yi ak turandoo yi ñoom ñëpp sëriñ si di woo na ñoom ñëpp ñu ngi nii toog jàkkaarloo ak moom bis boobu nag ñu di ko yëgal président de la république président Macky Sall moom itam ñu ngi ko yëgal bis bi waaye bala may damay jox kaddu gi sëñ Amsatu moom Cheikh Abdoulaye Lahat ñu jox ko kaddu gi bu ko defee nun ñëpp ñu àndandoo déglu ko. turu sëñ Mountakha xalifa Sall di Murid ak kilifa nun ñëpp sëñ ñu ngi bokk julli yëpp di nuyu bokk taalib yëpp di leen fàttali boo xam ne nag kenn fàttewu ko muy kaju sawaal xaama bal sasin 23 sawaal ci 1332 ak mi nga xam ne ci la Sëriñ Abdou Lahad feeñe muy atum cant di atum fàttaliku di atum bernde ndax sëriñ bi ci boppam moo ci jëkk def alalam ni am naa ci moom yaakaar wax ne ku mënu turam itam doo lakk kon nag ñu yoo bokki tali bi ci bis boobu di bisu Sëriñ Abdou Lahad di bisu jullit yëpp di bisu murit yëpp ndax Sëriñ Abdou da koo seqloo nag ñëpp lebal ñëpp teranga bisam nag di ku mënoon teraanga ci alxuraan ak ci xasida ndax ku ne xam na ni ab yëngoom yëpp ci alxuraan la ak xasida ak bernde ba bi mu wàccee liggéey alxuraan ak xasida ñoo ko wekk kon ñu ciy woo képp kuy jàngalekat alxuraan képp ku mën alxuraan ak képp ku mën xasida sëñ Abdou Lahad seenub cëre liggéey na ci xasida loo xam ne kenn liggéeyu ko ci moo day la alxuraan ji bindkat yu mag yi ak xasida yi sëriñ Tuubaa ba noppi tëdd fa bisam ñëwee nag ñu koy yëgal ñooñu di ko yëgal itam fu dawaayir nekk ci réew mi ak ci bitim réew ndax bu day amee bu seexul xadim ci sëñ Abdou la doore moo ni moo wutal yoon yu bitsi kon dawaayir yëpp ñu ngi leen ko sëñ Tuubaa ne ñu ñu ko yëgal ndax bu ko sëñ Tuubaa saaro moo moo ci moom la sama wax moo defaroon kër sëñ Tuubaa ngir bëgg bu njaboot ak sëñ Tuubaa demee foofa dal fa bu fa bu ñu fa nekkee taalibe yi dañu jom ba def nakasul noonu taalibe ko di gis taalibe itam daañu def lu nakasul noonu sëriñ bi di ko gis loolu rek doy na bu liggéey doy cant sëñ si nag di sant sëñ Abdou Lahad li mu ko defal woo ci taaliba yëpp ak bokk yëpp ak julli yëpp ndax sëñ Abdou Lahad ñëpp la defal ñuy wooye itam ñu nekk bitim réew fu ñu fi mën a nekk ndax dawaay yaa nga foofu bitim réew bari fa bi a dee mhm. këri sëñ Tuubaa yi nga fa bari fa léegi kon nag lu ñu mën a jàng ci xasida doyut lu mën a jàng ci alxuraan doyut lépp nañu ko def ngir addi def ko addi addi addi sëñ Cheikh Abdou di sant nag boole di wooy di ko yëgalee boole mbokki sëñ Tuubaa ñu bokkal sëñ Tuubaa kër yëpp ak seex sëñ Tuba ak képp ku am ku yor defarug sëñ Tuba rek ñu ngi la yëgal bis bi sëñ Abdou Lahad dañ koy fay boo xam ndax dañoo lebal teraanga yoo xam mënuñu koo fay bor boo mën a fay loo am da nga ko ci tàbbal sëñ Abdou Lahad lebal julli yëpp teraanga lebal na tali yëpp teraanga bisam boobu nag ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ci lu koy defar ci wax ak ci jëf lu koy jagal ñu ngi leen ci yo ñu ngi leen ko yëgal bis bu sëñ Abdou Lahad jagal na ba noppi waaye nag ngir ñu suñuy mbir jag nag foog ñu def ci suñu alal foog ñu def su su su suñu ñaq foog ñu def ci suñu njàng alxuraan suñu xasee barkeelu ko ci bis kon sëñ si dañ ko yëgal ñëpp di ci woo ñëpp ku ci ñëw ku ne yàlla na yàlla faj sa sa ajo ci barke Sëñ Abdou Lahad sëñ si ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool sun borom defal la gudd fan ak ak wér ak mucc ak yokku jëriñ ci barke Sëñ Abdou Lahad wasalaamaaleykum wa wa rahmatullahi taala wa barakaatu man xam naa ni damay sof wax ji jànn la damay sëñ am sa wax ci gën a rek ci turu sëñ bi ci fàttali bis boobu ñu wax sëñ Abdoul Ahad nag buñ ko waxee fàttaliku mooy fàttaliku lislaam ndax daf ne waxoon fii ne man Abdoul day fii ma fii nekk sëñ Tuubaa nee rek laa leen di wax duma leen wax Abdoul Ahad nee na kon kooku te sëñ Tuubaa léppam lislaam la kon fàttaliku mooy fàttaliku lislaam fàttaliku mooy fàttaliku jom ndax léppam jom la fàttaliku mooy fàttaliku liggéey fàttaliku mooy fàttaliku lépp loo xam ne lu yiw la ak bu baax kon bisam fàttaliku dëgg la fàttaliku ci eh, ci ci melokaan yooyu ak loolu mooy yaa dikkal ndax da doon sàmm rek tool bi da daa wax man sàmm laaj kon tool bee mu doon sàmm nag eh, muy valeur yooyu mu ñu bëggaloon ñu bàyyi ko xel bu baax ci fàttaliku ko ndax fii jamono ji toll de leeral ci ay mbirum lu bari lu lu mu doon wane te loolu mu doon way lépp lu sëñ Tuubaa waxoon la rek wala mu bind ko wala mag ñi fekke ko wax ko wala mu dund ko ndax waxoon nañ day sëñ Tuubaa nee na jamono ngi ñëw yoo xam ne ku ci sa lislaam mooy ak taalibe rek na ko denc ci sa roog seen te ku la ne ngaam nga bañ kon loolu ñu ngi koy dund fii ñu tool ndax lislaam ñu ngi koy attaqué ci boor yëpp te sëñ Tuubaa léppam lislaam la kon fàttali ko ci ci jikko yooyu ak melokaan yooyu tamit lu am solo la ko dajale nii da leen berneel nag waaye nag la la naar bi waxoon sëñ Tuubaa rek ni ko isa taafa bi baabikum xasaniyun faalam bi annahu amma si wallahi xaanihum ñun ñu waa xasaan yi bu ñëwee ci yow rek xamal ni yàlla rek lañ fi gës loolu yàlla rek xëñtuñ ko dañ fay gës yàlla mu ñuy fi xëy ñu du fi gës kon ku nekk ak la la indi kon sëñ ab laxa daal mu ngoogu ku jiitu woon jamonoom la te lam ñu doon waxaan lépp lépp lu jiwéne suñu mbir tey la ak ëllëg kon mu ngoogu sëñ mi nag dafa daf ma wax léegi ni ma comme ni ko sëñ am satu waxee léegi maanaam alxuraan ji ak xasiide yi ñu bàyyi ko xel bu baax ci bis bi ndax sëñ Abdoulaye day da doon dàkk sëñ Tuubaa ci bëggam ci alxuraan dàkk sëñ Tuubaa ci bëggam ci xasaayid ba tax na loolee mu boole woon ko ci ab ci tool bi mu doon liggéey mu boole woon ci loolee ndax sëñ bi ko da wax ne kansil kitaabu wala xadis wala adab la jamu fiddatin wala jamu sahab moo ko waxoon bindu ko sëñ laa nag feddli na ko kon sëñ bi nee na mi ngi digal njaboot gi ñu koy saytu di ko màggal foofu waaye mën a nekk na ko màgg na nga ko fanaan ba bët set moo ma ko wax léegi ñu dundale ko noonu maa dàkke ko ak bëggam dàkkal ko ak bëggam nem dàkkaloon ak bëggam sëñ Tuubaa kon mu ngoogu yéene ngoogu bis baa ngoogu sëñ Abdoulaye Kar nee noon ku liggéey sëñ Tuubaa taalib yi ñoo lay fay ñoo lay njukkal kon xam ngeen seen yëfa ngoog ah sëñ bi nag sàmm dong la ci te ma ngay ma ngay dàkk la sëñ bi bëggoon kon boobu mu ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñuy jox kàddu gi sëriñ Abdoulaye Jaxate ci turu turandoo yi yëpp mbokk jullit yi ñoo leen di nuyu leen ziyaara bu baax ci turu sa sëriñ Seydi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko fa sunu borom bàyyi lu yàgg lool te ànd ko wér. Hmm? maa ngi leen di nuyu ci turu turandoo Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yëpp. sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Souhaïbou sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Moustapha Bassirou di leen ñaan li ñaan li ñaanal sëriñ Seydi Mbacke mi mu yàgg ak wér. di leen nuyu ci turu yëpp itam nun yi ak nun turandoo yi ñu xam ne bis bii ñu dëgmal di bisu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñi ko sëriñ Hamsatou waxee léegi. sëriñ Touba ci boppam moo ko njëkk a màggal kon nag loolee mu defoon moom la sëriñ Sidi mbakke mii di roy ndax moom sëriñ Touba rek ko ñor kon nag nun turandoo yi nañu xam ne bis bi ñoo war a nekk ca tàmbali ba ñoo war a nekk ci digg bi ñoo war a nekk ca mujj ga nun doo nga yit kasaalika ndax sëriñ bi defal nañu loo xam ne moo nu xamal kan mooy sëriñ Touba ba ñu mën jariñu ci moom te lii sëriñ xam Xamsatu wax léegi nga xam ne Abdul Ahad boo ko xasee seeram araam na sawara waxuma la Abdou Ahad waaye ku mën aw turam sax seeram araam na sawara loolu kenn mënut a jaamu yàlla jaamu yàlla googu fay kenn mënut a liggéey sëñ bi liggéey bi gu fay kon nag lu ñu am nañ ko ci def bu ko suñu alal fekke bu ko suñu eh, ñaq fekke bu suñu xel fekke bu ko suñu dara fekke sëriñ bi ni mu ko bëggee sëñ Muudu wax na ko sànq bis bépp nañ ko jeexal ci alquranul karim xasaayid Cheikh Ahmadou Khadim ak bernde njukkale ko sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad ndax rek moo ak bëggam kon nag ñu ngi woo bokk jul yëpp fu ñu mën nekk ci kaw suuf bokk taalib yëpp ñu mën a nekk ci kaw suuf ñu màggal ko ci tax si mu xoo bi sunnati jooji sëriñ Tuubaa waxoon ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Saliou mi daa waxoon ne guddi gi yonent bi day yamale ko guddi ga ko jëkk wala ga ko jiitu dara ko ci ab julit waaye loolu la ñuy waxee ci guddi Cheikh Abdou Lahad yamale ko bisam bis ba ko jiitu ak bis ba ko jiitu dara jaru ko ci ab julit rawat naa ko ab murit ndax liggéeyal na julit yëpp liggéeyal na réew mi liggéeyal na murit yi kon nun ñoo ko war a delloo njukkal kon nag ci turu donga yëpp ci turu turandoo yëpp li ko tàmbalee bis ni ki tey alxuraan gi nañ ko tàmbalee ñu ngi woo rabitatu madaaris xuraaniya muy kuréel gi lëkkale daara alxuraan yi tàmbalee ko sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Habibu ak sëriñ Basiru moom sëriñ Fallu ak sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne moo jiite Touba kon fu mboolem daara alxuraan nekk am nga ndigal tey nga tàmbali kaamil yi ak xasaayid yi ba bis ba lépp luñ ci am ci ab lim itam buñ ko mën a jotal ñu jotal ko su bis ba itam ñu ñëw si kër gi ànd ak sëñ Abdoulahad Jaxate ñoom ñi nga xam ne ñoo yore woon kaamil yi ñu dundal ko ci alxuraan a xasida du dakk ba ba ba ba ba bañ julli fajar am na ay kuréel daayira yoo xam ne taxaw nañ tam fas yéene ànd ak noonu ci loolu waa commission culturelle ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ñoom itam fas yéene tax ñu mën a jariñu sëñ Abdou Lahat danañ ko fàttali doomu aadama dañ fàttali julli ñi kon loolu ñu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp maa ngi tuub di lu baax kàddu gi lépp lu ci dëng nun la waaye eh, ndax xaw ñoo bett waaye ñu ngi lu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu ci àgg ak jàmm muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ñu ne talaata ñaari fan ak ñeent ci weeru mai wi. Cheikh Abdoulaye nag sëñam am sot wax na leen ko léegi ku munta leble war a mën a jéem a fay bar waaye Cheikh Abdoulaye kenn mënu koo fay xanaa réew mi ak diini ji ak biir réew mi bi bitim réew ñëpp àndandoo màggal ko ni ko sëñ si di bëggee te ñëpp ñëw tuuba ndax sëñ Abdoulaye jar na ko rawatina muy presse bii fu ni presse gëndoo léegi ak ni mu yaatoo télévision yi lépp su amee yàlla kaddu Cheikh Abdoulaye ga rek. moo tax mu moo tax mu sotti ko moom mooy que Cheikh Abdou Khadir Mbacke seeroon ni nit ku ne mën a koo denc ci jëfam ni alxuraan jëfama ñu denc ko ba noppi mun Cheikh Abdoulaye dëkk naag alxuraan faw bis baa ngoog le 24 mai la di bisub talaata di le 24 tombeeg ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor wi nu ne bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñen ne ñëpp ñëw bisu Cheikh Abdou ku ci feeñ ci lu baax te màggal ko na ko Sëriñ Tuubaa bëggee woon dootoo nëbbu yaa xayu yaa xayu musalli ala lasi jaa bi ahsani alkalaam ala lasi wal taqabal sal mun naa la xaarisil bi maa yafuuxu sann min maaruufi